asalaamaaleykum sama mbokk internet yi man walista ma maa ñëwaat ci seen émission li ci marché bi fii ci Actu 7 News tey nag dama dugg biir marché HLM euh, daal di dox nank dugg ci boutique Jide Cuuraay ko gis euh, fi ma taxaw xam ne décor bi changé na euh, Jide Cuuraay nag boo leen ko déggee tur bi wuy na borom ñooñu xamante ne li xeetu baax baax rek la ñuy jaay at lépp loo xamante ne ne jigéen da koy utiliser ci ménage am ñoo ci gën a ñoo ci gën a aay ci xeetu baax baax moo tax tey ñu dox nank daal dugg ci boutique bi daal di waxtaan ak moom mu présenté ñu yii mu yor Ngor. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si ñu ngi lay fay. ah tur bi. El Hadj Fall. ah tey nag waa Actu la seet si euh, di xool euh, yu baax yi ngay jaay. waaw ñoom nag yàgg nañ fee ñëw suy ay partenaires suy xarit lañu. ah macha allah ñoom bu ñu kontaan bu ñu fi ñëwee dañuy kontaan. Uh-huh. wallaay wallaay. waaw ah, dañoo bëggoon nga wax ñu nag yi ngay jaay nga présenté ñu waaw loolu mën naa parce que yéenay borom kër gi. waaw cuuraay comme ça am yi bu dee cuuraay kecax bi la am yi uut bi am na maslaf yi yëpp ay cuuraay la yi tamit ay parfum yi cuuraay la yi tamit ay cuuraay la ay ànd yaa ngi nii aussi yi tamit ay ànd la waaw yu ay massage la. présenté ñu yeneen nouveauté yu xew léegi. lii mooy armignon bi bu bees la aussi moom la ñuy wax bi waaw bu bees la waaw. léegi bii nan lañ koy taalee ci néeg. bii bii daal da nga koy def ci doom bu tàng rek doom bu tàng rek moo koy taal. bi moom qualité bu bees la moom waaw neex la bii bii la wax xeeru xeeru màkk bi waaw moom it doom bu tàng moo koy taal bu bees la te bu neex a neex la waaw am na bii tamit mooy bu weex bi xeeru màkk bu weex baa ngi nii moom it bu neex la comme dab rek noonu nga koy taale bi tamit gis nga ko bu bees la ut bu bees la moom dafa neex boobu doom bu tàng moo koy tal am na bii tamit neex na maslaf bi moom ar ci ariwaas yu bees la bok waaw ñun doom bu tàng moo koy mo koy boko talé dafa melni parfum nga waaw am na tamit oud bi bi tamit oud la waaw cuuraay yu neex a neexal la. Euh, ji bitig bi mo moom mooy jidda cuuraay asalam 5 jakarlo ko euh, essence bi kep ku soxla produit cuuraay bu neex bo ñewé dang ko fi fekk. daan la dalal teral la jigéen ñi nag daanaka yi ñuy gën a jënd fii am na cuuraay boo xam ne làmb ji la tudd waaw boobu jigéen ñaa ngi koy jënd bu baax a baax a baax am na boo xamante ni tamit ni caay pare naa la boobu tamit jigéen ñi ñu ngi koy jënd jënd jënd bu baax a baax waaw am na boo xam ne soosu kaani la jigéen ñi ñu ngi koy jënd waaw am nañu am nañ Marème Faye Sall bi tamit jigéen ñi ñu ngi koy jënd bu baax a baax a baax am nañ fii couscous marocain tamit am na boobu tamit mi ngi dox bu baax a baax a baax waaye temps yi moom làmb ji moom moo gën a dox moom. làmb ji moom jeexal nay wax bëre rek la. lay ndeysaan moo tax it moom ñu ngi bëre bu baax nag ñu ngi bëre bu baax korax ñu ngi bëre bu baax nekk nii moom mi ngi dox bu baax. aussi tamit bii mooy Maram Faye Sall moom ñu ngi koy jënd bu baax moom moom la ñu taal pale. Hmm. soosu kaani baa ngi nii moom mi ngi dox bu baax a baax. soosu kaani baa ngi nii lii nag moom mooy làmb ci moom waaw làmb jaa ngi nii moom moom moom moo gën a dox si cuuraay bi moom waaw moom jigéen ñaa ngi koy jënd bu baax a baax ndax ñoom dañoo bëgg bëree daal. léegi làmb ji moom ñaata lay jar par rapport ak yeneen cuuraay yi. non làmb ji moom kilo bi 20000 la moom. non ñoo yem rek 20000 la 20000. waaw daal da gën a neex daal. da see gën a dox. Ah. couscous baa ngi nii moom. ah turam de wuyu na ba boppam moom macha allah. ay mélange parfum yu neex. mélange parfum yi. yu neex a neex a neex. mélange yaa ngi nii. li doo koy jég ju xeeñul neex moom ci yow la waaw ñun pare nañ moom. daa ngeen nañ fi aussi ay nuisettes ak astuces yoo xamante ne jigéen moom la ñuy utiliser. waaw nuisettes yi am nañu nuisettes yu rafet comme ça yu demee nii. waaw yu nuisettes yu rafet am na yoo xam ne ay 10 000 lay jar yi 15 000 am na 20 yu baax a baax yooyu tamit jigéen ñu ngi koy soxla ndax temps yi dafa tàng. ñu fi ràññee aussi ay yeneen gawe yoo xamante ne gis nañ amul dara am na bii bii la wax digijë bi moo nekk ni digijë xooj bi moo nekk ni mooy digg ja xooj at nawet bii ñu nekk euh, xale jigéen yi ban euh, gawe lañ gën a bëgg misi bi moom mi ngi bom moom parce que bu bees la moo ni mooy kaani fajar barki di lañ wax sankal bi ha ah, xaram ma ñëw garage nak bi lay bi mom xalé jigéen mom lañ tuddé yegg yegg bi lañ tuddé daj dëpp daj dëpp gaangi ni nii tax ñu koy woowee daj dëpp non ha ah. tax ñu koy woowee daj dëpp bi dafa garaaw mom moy roi moy roi daal waaw mooy roi ah kon wax ji faranko laay na wallaay wax ji ngay wax waaw moom waaye wax ji fi tol ni mom dafa toog ñu ngi gis aussi gawe boo xamante ne amul cuuraay amul dara gawe noonu dong la euh, suñu nekkee si nawet bi dañuy gis ni euh, nit ñi dañ koy faral di jënd euh, di ko def seen néeg. waaw bii moom nit ñi dañ koy jënd bu tawee daanaka bu tawee la ëpp luñ koy jënd parce que day jënd xetu ñeeg moo tax waaw am na tamit bu mokk bi moo nekk nii waaw. am na aussi tamit gawe saaf bi tamit mu ngi nii tamit am na gawe saaf moom kilo bi 10 000 la moom. moom moo gën a cher gawe bu amul dara bi. moo gën a cher gawe amul dara bi nag parce que dafa am yeneen yu ñu ciy boolewaat moo tax mu gën a cher dafa am yeneen produit yu ñu ciy def ba mu nekk gawe saab waaw. produit yooyu mbaa cherul. produit yi nag cher na moom parce que dañ ciy def ay royal bukki seeb laam yara yara ba pare da koy tànn moom fekk nga dem kër ga saaf ko. yan cuuraay la sëriñ yi di utilise non cuuraay yi sëriñ yi nekk na ay jaawiye ak ay liban yëpp moom moom la sëriñ yi gën di utiliser moom. kon cuuraay euh, suñu tënkoo ci wax ji euh, day faj. waaw cuuraay moom bari na lu muy def moom ndax xeet gu neex la ba tey faj xeet gu baax moom day faj moom. ba ci gawe bi sa gis naa ni gawe bu amul dara bi dañuy jël euh, ñuy am métitu biir jël xooj kook ceeb di ko naan. waaw moom day faj lu bari sax gawe moom du méttitu biir rek day faj lu bari day raxas deret waaw moo tax ñu bari dañ koy utiliser di ko di ko di ko xooj di ko naan. baax na trop tamit day jindi ay coono yaram yu bëree bëri. ah kon ñoo ko déggandoo euh, sama mbokk internet yi euh, tey li laa leen indiloon euh, fii ci boutique gu Didier cuuraay euh, muy bitig muy bitig boo xamante ne ne euh, lépp xeetu baax baax euh, la ñuy la ñuy jaay muy côté lingerie ak côté bu nekk kon moo tax tey ñu seeti woon seesi woon ko rek pour waxtaan ak moom gis ngeen nag lum ñu wax fii ci cuuraay bi surtout ci gawe bi waxuma la dara waxuma la xet bu neex rek waaye day faj day faj ci lépp di raxas deret di lu ne kon bokk sama mbokk jigéen ñi ñëw leen seesi ko mu jaay ne xeetu baax baax yi fii ci boutique bi boutique bi nag mu ngi ci HLM boo la ñëwee rek ko kon bokk lii laa leen indiloon man walista fi ci Actu 7 News di ko présenter chaque semaine. Thank you.